Bassirou Samb maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ngay coordonnateur euh, jeunesse euh, taxawu Sénégal ñu gis ne jamono ji bëri na ñi tekki seen nombal tànk ci li nga xam te ne euh, mooy taxawu Sénégal coordonnateur national bi li waaye tamit lu toll vingt quatre ci ay cadre pour yow lan moo waral lu ni mel. waaw xam nga démission bi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo démb donte amuñu ci mbetteel parce que olof li muy wax en général lu feeñ ci sëy bi rek nuyoo woon ci ngoro gi. ñu bari ci ñi nga xam ñoo signé lettre boobu gis nañu ni bi élection yi jàllee ba ñu am résultat bi ñu am ba léegi gisatuñ leen ci benn ndaje taxawu Sénégal wuy seetuñu benn ku woote boo xam ne taxawu Sénégal woote na ko donc loolu amuñ ci surprise fi nga xam ne peut-être fa la surprise ne eh, loolu ma koy naqarlu mooy nit boo àndeek moom ba bëgg a dem demal mais bul sos sos nag mooy wax ni taxawu Sénégal dafa am alliance ak benn bokk yaakaar moo tax ñu génn may fàttali loolu du dëgg parce que taxaw Sénégal ba fii may waxee amul benn instance taxaw Sénégal boo xam ni wax na ni dañuy ànd ak benn bokk yaakaar bi ñu defee suñu évaluation ba pare waa taxaw Sénégal camarades yëpp dañ jàpp ni tay dañu war a des ci opposition bi dañu war a continuer bi parce que nag dañoo dem élection def offre sénégalais yi tànnuñu suñu bos tànn keneen te ci démocratie nag bu sénégalais yi tànnee da nga koy nangu mooy tey ñi nekk ci pouvoir bi ñooy gouverner ñi nekk ci opposition bi ñu opposé wu te ñun dañoo fas yéene des ci opposition bi continuer xeex bi defaraat suñu toogaay. alors ñu gis ne sax ci seen bataaxal bi ngeen jot a génne yéen a ngi euh, préciser que ne amul benn rapprochement euh, goo xam te ne jot ngeen ko def ak yeneen parti politique yi. waaw ba fii may wax ñun bi ñu génnee ci élection dañuy avant ñuy wax alliance nañu évaluer élection bi résultat bi ñu am fi ñu jógee lan moo tax ñu am ko naka la ñuy def ba avenir bi ñu éviter manquement yooyu xam ne donc ci foofu la ñu toll et bi ñu jógee ci évaluation bi ñu it ñun kat ginnaaw bi ñu jàngatee sunu perfor compte performance bi dañuy des ci opposition bi moo tax tey boo waxee ni waxtaan nañu ak benn parti bu mel ni benn wax lu la neex la li ñu gis kañ mooy ay nit ñu bëggoon taxawu Sénégal dem ànd ak nguur gi camarades yi d'accord ñu dem. ñoom comme dañu bëgg ànd nguur gi nañu dem and nguur gi c'est leur responsabilité mais bu ñu jéema a naxasal xelu sénégalais yi bay sos. kon da nga gis ne ay sos kese la daal. ba fi ma waxee dama jàpp ne sos la parce que koo xam ne depuis élection yi ñëwoo benn rencontre nanguwoo wuy ci benn ndaje taxaw Sénégal donc boo génnee wax lu mel dama lay fan nga ko déggee ak fan nga ko gisee. Mhm. ñu gis ne nag euh, visite yi bëri na euh, lu tukkee ci Amadou Ba dem gis ki nga xam te ne mooy Idrissa Seck Barthélemy également dem gis ki di Bougane euh, visite yu bari yooyu ni nan nga ko jàngatee ndaxte ñu ci bari ñoo ngi naan est-ce que dooy alliance yoo xam te dañ koy jéem nas. waaw xam nga dama la wax ni Sénégal bi ñu demee ci élection. dafa am ñu ñu tànn ni leen jiite leen am ñu nekk opposition bi te tout le monde sait que élection Sénégal benn parti mënatu ko gagner il faut forcément des alliances donc tey ay hommes politiques gisante di waxtaan c'est tout à fait normal maintenant le moment venu kenn ku ne la nga doon daje ak la nga doon dox di nga ci wax sénégalais ñu xam ko mais li am solo rek mooy l'opposition travaille aujourd'hui à avoir une majorité élection législative yi nga xam ci lañ jëm alors nan nga gisee tamit législative anticipée yi nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono ji waaw li ñu gis mooy nguur gi moom dafa bëgg def législative anticipée moo tax nag force politique yëpp tey ñoo ngi liggéey en tout cas ñun taxaw Sénégal ñoo ngi liggéey ñoo ngi waxtaan fexe ba am euh, présence bu am solo ci assemblée nationale bi fexe ba assemblée nationale bi ñu jëm du doon assemblée boo xam ni ñi jiite dañuy am majorité mécanique boo xam ni def leen di permettre ñu def lu leen ne mais il nous faut aller vers assemblée équilibrée où pouvoir ba dong du fa nekk di buum di buum mi en mhm. ñun ci loolu la nekk ci loolu la ñu fas yéene ñu gis nag ne jamono ji projet euh, dissolution au conseil euh, des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental euh, mu doon bëgg-bëgg njiitu réew mi Bassirou ay Faye député yi sax dajaloo nañ ci plénière gi nga xam te ne woote nañ ko ana nan nga jàngatee situation boobu de. waaw xam nga bu ñu gisee projet bi man lenn ma ci jaaxal mooy ay fan ci ginnaaw seen réforme yi mënuñu ko yóbbu assemblée ndax amuñu majorité ñu xëy xëy gis ni kat tey yóbbu nañu réforme yooyu ci assemblée boo xam ne il faut nga am trois cinquième te tey pouvoir bi amul trois cinquième donc ma jàpp ni dañu nekk ci politique politicienne parce que li Sénégal yëpp doon xaar mooy premier ministre dem def déclaration de politique générale parce que moo ni woon bu ñu modifier règlement bi intérieur bi mu dem assemblée modifier règlement intérieur au lieu que moom mu dem defi déclaration politique générale ñu koy indil ñu un projet de réforme boo xam day viser supprimer conseil économique social environnemental donc ñu jàpp ni nguur gi ne la ci politique rek la ñu nekk. Mm-hmm. alors euh, rationalisation dépenses publiques yi tamit ndax euh, moom ci boppam di Elimano Diourini ci conseil des ministres wax na ci ne daal dinañ supprimer budget bi ñeel nag programme yi nga xam te ne daanaka mën nañ jàpp ne amul solo. waa xam nga tey contradiction mooy lan tey moom premier ministre ca biir primature dafa am beneen gouvernement parce que gis ngeen liste conseil technique yam fa am ñu méngoo presque ak gouvernement bi nga xam président de la république teg na ko beneen bi mooy yow nga ni da ngay rationaliser mais nga nga ni tey da ngay conseil économique mais nga jël poste ya mag yi nga xam ne fole woon nga xam ne ñëpp ko décrié woon mooy nga xëy lii da ngay ci ngoon gi nga nommé au représentant président de la république te woon nga envoyé spécial bi président de la république beneen bi bépp post boo xam ne waxoon nga ni da nga koy supprimer da ngay fusionner ñu gis ni nommé nga ay directeur ci poste yooyu nommé nga ay agence parce que ñoom ñoo waxoon ni dañuy fusionner lu mel ni benn de FONGIP ak yooyu yu mel ni yooyu tey jii foofu yëpp nga nommé fa parce que sentir nga besoin recaser sa clientèle politique donc moo tax ma jàpp ni tey dañoo nekk ci politique politicienne di jéem nax Sénégalais yi mais bis bu ñu bëggee rationaliser am na ñu fu baree bari foo xam ne war nañ ko mën a laal au lieu que ñu continuer di jéem a jeter sànni poudre rek ci bëtu Sénégalais yi. comme danga gis ne daal li nga xam te ne moom lañ doon woote tey jii wéyaluñ ko. mais wéyu luñ ko parce que tey système ba la ma xam ne ñoom moom lañ doon xeex système bi mais tout le système mi ngi marié wu ak anti système. Hmm. donc nañu bàyyi nax Sénégalais yi parce que am na ay urgence yoo xam ni foofu la leen Sénégalais yi di xaar. rawatina euh, déclaration de politique générale nan nga jàngatee la fekk ba tey euh, Elimane Diori ñi euh, jotu ko nag def. Hmm. mais loolu moo jaaxal sénégalais parce que déclaration politique générale mooy lii tax wan sénégalais ni ah ñoom ñi yor nguur gi tey fii lañ ko fekk fii lañ ko bëgg a yóbbu lii lañ bëgg a def. lii lañ bëgg a liggéey mais tan que loolu amul tey doo am lisibilité ci nguur gi fi ne fan la bëgg a yóbbu askan wi et loolu nag jàppoon naa ni nguuru président Diomaye Faye ak premier Ousmane Sonko am na ay erreur manquement yoo xam ne dañ ko doon xeex ñoom dinañ ko éviter mais c'est dommage. et justement yaa ngi ko doon junj mooy nomination Aminata Touré en tant que haut représentant euh, du président euh, de la République nan nga jàngatee également euh, tab googu ñu ko tab. mo loolu yëpp politique rek parce que haut représentant du président de la lan mooy liggéeyam parce que tey ci por ci ci ci ci li ma gis ñu bind ko ci kayit mais yenn fonction yi ministre des affaires étrangères moo ko moom yeneen yi euh, le ministre des de l' intérieur moo ko moom yeneen yi premier ministre lan moo lan mooy wundu tey ñu nommé ko parce que rek ànd nañoo ak moom jàppale na leen il faut ñu caser ko ñu daal di créer seen benn poste teg ko fa donc pratique yi nga xam moom lañ doon xeex pratique yooyu ba tey dañul au contraire dafay gën a empirer ñu gis ne ci seen bataaxal tamit yéen a ngi fësal seen taxawaay ne daal détermination ngi nar a demee ci combat bi waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum démocratie ak liberté solidarité rawatina fii ci dëkk bi tax na sax euh, tey euh, ma lay laaj na lan mooy ci seen taxawaay nan nga jàngatee insécurité bi nga xam ne moo ngi lëmbee réew mi maanaam ci bëri ñi ñuy fàtt euh, jamono ji lan mooy taxawaayu taxaw taxawu Sénégal. waaw xam nga taxawu Sénégal damay fàttali leen mooy kuréel gi gën a yàgg ci opposition. parce que presque de 2012 à maintenant ñu ngi ci opposition bi. donc moo tax may fàttali rek nit ñi képp ku ñëw ci opposition bi fi nga ñu fekk ku dem it dañ ñu fee bàyyi donc opposant yi mujj ñëw yëpp dañ ñu fekk ñun ci opposition bi moo tax ñu jàpp ni tey dañu fas yéene nekk ci wetu sénégalais yi xeex porter le combat tey gis nañ fan yi lu mel ni ay meurtre yu bari ba am sénégalais yu ñàkk seen bakkan gis nañ sénégalais yoo xam ne aussi accident route ñu ngi ci ñàkk seen bakkan gis nañ ay ndaw yoo xam ne ñu ngi continuer di jël gaal gi di ñàkk seen bakkan donc ci question yooyu nag foofu la xaar nguur gi mu indi fi ay solution concrète au ñu nekk ci politique politicienne bi nga xam ni jëmalewul réew mi fenn. mais est-ce que mënuñu xaar sensibilisation bu am solo euh, tukkee rek ci taxawu Sénégal ndax askan wi tamit euh, soxla nañ seen baat. non loolu moom na sa xel daal ñun dañu nekk kuréel goo xam ne question bu ci ne dañ ci toog waxtaan ci. jàngat ci ak borom xam-xam yi ba bu ñu ci wax sénégalais yëpp xam ni lii ñuy wax xam-xam la moo tax dinañ leen jox rendez-vous bu yàggul tuuti rek di ngeen dégg sénégalais di ngeen dégg waa taxaw Sénégal ñu joxe seen xalaat. ci questions yu bëree bëri yi nga xam ni mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund. <laughs> alors ana ban message rek ngay lancé euh, gouvernement bi jamono ji. mooy ñu wàññi wax ji te liggéey xam ni nekkatuñu opposition tey ñoom ñoo nekk ci nguur gi donc xaaratuñ ci ñoom ay dénonciation ak ay wax mais ay solution lay Sénégalais di xaar ci ñoom kon nañu liggéey te wàññi wax. alors Bassirou Samb jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay coordonnateur jeunesse taxawu Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfal yéen.